Bienvenue sur Salam Vision.

leen elomit ba ayo moom ku nekk lu am am téeméer ak juróom fukk loo xam ne Maam Modou Moussa Fall Alaaji Malick Dia ak Serigne Moustapha Mbaye di démb la de maa ngi siyaar ba maa ngi tey waaw kay kay kay waaw kay waaw kay kay waaw kay rek di siyaar ba Malick Dia waaye gëj naa la gis loolu nag xéwal yi. Abdoulaye Lo mooy koor gi la jàpp xanaa ah? dara yone yone mooy sama maam la woo yone ñëw na soxna maam Mareem Fallilu yaay soppe yoneen bee maa la woo mareem falliloo yaay soppe yónneen bee maaloo yónneen ñëw naa Amina mooy yaayame jarna point focus bi mooy transparence parce que nii ñun ñi koy laaj ak ñi ñu koy jébbal dañuy joxe comme yéen li may wax président toujours yaa may ubbi soo ubbee mu doon jiglaay jëwriñ aas yi léegi dama joxe ñaari junne ñëpp fii jaay yëpp ay joxe nit ki nag buñ joxe xéewalam bu ko joxee ba noppi mu xam ni sama xéewal bii ma joxe fii la dem loolu gënoon yokk a tax sax ñu ndaje fi def ko sax mu nekk événement ah, yàlla dugal na ci loxoom waaw gaa ñi daje nañ jàng nañ xasida yi ndong na da nga ko téye ay jëwin yu bari néew na bari na daje nañ téeméer bi waaw loolu nag waa Ndakaaru rek Pikine geeg Parcelles geeg Yëmbal geeg ah Cité beeg Lansar geeg Touba Pikine ñoo ñoo ko penc beeg yaa daba soxna yeeg ñoo ñoo ko dajale mu néew mu bari jànkat dama ko ñor jànkat ak béy jànkat ak béy ñun ñëpp a ko dajale. waaw Pikine région de Dakar rek daal. waaw bokkul. kon bal bu kenn macha allah daal waaye li sëñ bi waxoon rek. ñiy def nañ yóbbaale ñëpp rek. waaw lii mu néew mu bari. yàlla na ci fajoor aajo topp mu laaw ci ñëpp rek di barke maam Cheikh te moom nag maam Cheikh bi suñu borom yàggal ko te wéral ko. te yeggale bépp yéenéen ah. ñun suñu yitte ñun yëpp ay ndaw lañ waaw waaw ñu moom la waaw di baluwaat ak nag bu baax moom lay suñu jiite parce que jiite yombul te ñun ay ndaw lañ ñoo jigéen ñee a yem dañoo yore caprice yore humeur boobu humeur ah waaw tey bu chaud suba ñu froid ginnaaw suba ñu wax lu kenn xamul ay ndaw lañ kon suñu kilifa yi ñu ngi leen di jéggal bu baax ñun jëwriñ xaas papa Babacar Seck yaay booy soxna Kaba ak ñëpp rek kilifa yëpp rek waaw grand Malick ñu ngi lay siyaar bu baax waaw di jéggal ñëpp rek di leen balu ak di bal ñëpp tamit ak rek di ñaan ñëpp bal ñu ak parce que mbooloo neexul li may wax nag mooy li ëpp solo mooy booloo doon benn waaw man c'est toujours may chercher transparence damaa bëgg rek ñëpp la main sur le la main au moins lu xaj waaw dañuy am ndam leen fii moom kenn defalu kenn dara kenn kenn dara lu waay def sa bopp daal moom sëriñ bi gën a kërtal ci sax ci rek waaw sax rek def bi rek di di ñu xool rek di jëpp sëñ Touba waaw bu ñu kenn xool rek di jëpp sëñ Touba ndax maam sëriñ la laa fi ñu ci waaw ñu jégaluwaat nag bu baax rawatina daal suñu kilifa yi ndax nekkati gone yombul waaw gone dafa bari mbir daal ay gone lañ ay mag lañ doy na waar waaw bu ko defee daal ñu góorgóorlu ci te fexe comme ni ko président waxee sant am bis waaw ñu ñaanal suñu way taw yi ñu ko xalaatee ak yeneen ak yeneen daal le reste état venir mais suñu jógee ci suukaru koor yi ba jëm ci koy ci koor koor ñu ñu woote daje te dajeel la ñu koy bëri. ci ñu yëg waaw ñuy waxtaan. waaw ñuy jëfandwaat ñëpp. di falwaat ak ñëpp. waaw di ñaan daal ñu toppante rek suñu rafet. waaw pour ñu def lu ñu fi yëg wala ñu ko xamul dañu jëggal. waaw ci kàttanu sëriñ bi jëggal nañ ñëpp. salaamaaleykum wa rahmatulah. li ñu dolli rek mooy. lan ci matériel la dañu war gërëmaat santaat di ko ñaanal soxla dama ndax kër gi daf ko def daara mooy seen génération bi loolu yàgg lool loolu taariwu ci benn yoon lii tey jii firnde na ndax mënoon nañ ci daje cinq heures def li ñu def daal di am suñuy jàng daal gis def ci alal ba ci nekk li suuf ba ñoom yàgg lay def loolu bu amee dañ koy ñaan loolu doy na musal ko sàmm ko sàmm njaboot ñaanal njaboot bi tamit ndax njaboot bi dañ topp ci ginnaaw gis nañ ñoom action yi ñuy def waaw njaboot bi ñoo ko gën a sawar ci jëf man nag sant rek ñu def sant ñi yal nañ ci yàgg te ànd ak ñu gàtt daal ñu gàtt moom waaw dina ñaan rek waaw daa ngi benn yoon yaa ndeyu daara nga wala Thank you. nii alhamdulilah mu maa ko fekk ñu def lu ñu def lu yàlla def lu dañu daal def lu rek ah, waaw waaw fekk ñu màggee fekk ñu ah, waaw kon maa ngi di ñaanal ñun ñëpp toog ku ci nekk tey ñu ci laaj ñu parce que ñu maanaam ñoom ñu ñëpp hmm. kenn ko mu jël ko mo la kon nag maa ngi di ñaanal yàlla yow fekk ah, ma sha Allah

comme comme guddi na ba pare te jëwriñ Omar bi na la muy wax te wax na ñu def di sant ñëpp ndax damay commencé asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di ñaanal yàlla sëñ Moustapha suñu borom yàggal ko sëñ Cheikh Jëmmu Fall ñaanal suñu yaakaar tey ak ëllëg ndax moo tax suñu diggante Cheikh Mouhamadou Fall mu dalay Cheikh moom Cheikh Mouhamadou Fall suñu borom yàgg ko dama ànd koog ñun nag kenn bañ a manqué yitte yi yitte yitte yi pour yitte yi pour nit ñi dana ko suñu borom saabu si bàtt weer quoi wala bu ko mun na am deux bu sëñ mun na am deux millions wala mais nag li ñu am yàgg a di sant Malick Der di Sapa ndax ay magum taalibe ndax si si si taalibe yu njëkk yi la te mosuma def quoi muy Malick muy Moustapha njaboot na dina dem ba téere ñu bëri muy dafa def comme comme def ko Moustapha moom tam njabootu ko téye mais saa si nag dañuy dañuy liggéey amul lenn liggéey boo xam ne maanaam duñ dégg te du jël alal bi kon lii dañ koy soxla si ñoom ñu ñëw di di jëmmal ci jotaay yi ndax jëru amoon na kam bu mbooloo sëñ bi boole boole moo ko moo ko ñoom ñu doon benn di nga li ñu am nii benn gën doon nii mu tuuti mu néew ñoo ñoo ñoo ko liggéey te sëñ bi bëri na ay mbooloo bëri na ay doomu aadama ay mbooloo mais pas-pas yi bu dëgëree rek ndax xool ko mais xeebuñu ko am na ku ma jox léegi ko ma la mën a ko waa waa waa waa gars yi soppee sëñ Fall ba ñu nee seen at yëpp jox ma ko ne xeet nañ ko lool ma ne ko ñu nga dërëm euh, nga jox leen sëñ Tuubaa dërëm ko junni a la ñëw di ko seete mooy lii rek kon addiya bu tuuti addiya bu ko joxee mu xeet ko rek xamul ne maanaam xamul lan mooy addiya kon yàlla nañu yàlla sutura ñaanal sëñ cheikh bi suñu borom yàggal ko ñu gën a suudewaat mais xam ne liggéey bii muy tool sëñ cheikh bi bii mooy suñu tool sëñ cheikh kenn la ko ko cër si biir ko sëñ Baba amul kenn lu ko dale si yaboo na ba si Cheikh Awa Balla ku gën a tuuti na gaaw amul kenn ku ëpp cër si biir kër ne nekk nii te am na kese rajo boo xam ne sëñ tàkkum sëñ Fall wax na ko ñoom la leen dal si sëñ sëñ sëñ Fall ñoom dal ñoom dalu leen mooy amoon amoon doom tuddee ko mu génn àdduna mu jëlaat beneen doom tuddee ko moom sëñ Abdou leen am kër Sëñ Fall kenn am kenn am ko kon nañ leen gën a góorgóorlu ñu ànd ak moom sëñ la boo xam ne maanaam bëri na kaf mais ci kafam geer waxtaan beeg kafa geer yooyu yëpp ku am ku amul sax ku amul sax dëgg-dëgg doo mën a jëw yi si moom ndax baatin baatin bi lay baatin bi lay lay lay nëb kon yàlla na yàlla yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla guddal fanam tonda da lii lii ngay def ndax kii moo moo doon seen dem la mu wax ne tant que maa ngi si bopp mbooloo may ànd sama sago di ànd ak sama xel sëñ bi kenn ko jëlee ci ndax démb fii ñëw di ànd ak sëñ mel woon nii ñun ñoo fi ñuy def daayira tam xarit ñu ñëw di toog fii mu tax ku mënul lu nekk dégg na ko diggante moom sëñ bi ba tey ba njabootam màgg ba kër gi mel nii kon ak sant yàlla dañ ne loolu def ba ba bu ko bàyyi lu mën a taw ndax fu ne ndox yi nga joxe suñ benn dërëm demul jàpp daay kon ñëw ñu toog ni nga def sëñ Fall nag lan lay bàyyi moom dong lan lay bàyyi kon yàlla na di sant Ndaago soxna Maam Mbàkke Maane Euh, Fatou Faye soxna Sylla di sant góor yàlla yi soxna Gueye. wóyul Issa Diaw yi. voilà Modou. waaye mu ngi sant ñëpp di sant ñëpp Diaw yi Fapal Baye Fall yi Adama di sant ñëpp Bouba Fatou Diaw yi Makhtar Fall Cheikh Niang waa Pentina Dourou. xale yi sax yëpp yàlla yàlla na ko teel ay jërë yàlla bëgg nañ bu baax a baax bëgg nañ bu baax a baax duul bëgg nañ bu baax a baax yàlla na yàlla may yàlla na yàlla suturaal nit ku waaye ni daal bii nag mën naa koy garanti ba ma ko tegee solution bi doomu laa ko teg bu déwénee dinañ ko dajewaat. incha allah te kenn du mag doomu laa ko teg nag bu nekkee am naa dara te am naa dara su ma. waaw dëgg la. waaw léegi li ñuy dollee mooy dañoo waxoon téeméeri junni la trois mille cinq cent dollee ku war na waaw ñu wax kon des na ba tey kon maanaam six waaw su ko la tuddee comme ah, waaw parce que su dee dëgg la kon mu ngi noonu yokkaat na loolu ñu ko xamee noonu rek kon dalee na téeméer junni ak junni ak ñaar téeméer ak benn junne ak benn. téeméer junne ak benn. ak ñaar téeméer. waaw mu ngoog. six mille cinq cent. waaw di sant tamit Sam. ndax lii muy def lii tam bokk na. waaw bokk na tam si liggéey bi. ndax moom tam jàmbaar la woon si liggéey bi. ba léegi tam jógul. dëgg yàlla wóor waaw jàmbaar la jàmbaar la si liggéey bi. maanaam fu mu nekk nii lii muy def lii lii lii muy def nii. borom maanaam mission la boo xam ne suñu moo ko jox bokk na si liggéey sëñ ba màggal màggal Touba gi dafa indi équipe am ñoo filmé te kenn jox ko un franc kon yàlla boo gisee mën a boo gisee mën a ko dafa xew archive la archive dafa xew laaj ma ku ma ne ma wax ko ko mu bett ma waxtaan waxtaan am solo moo tax liggéeyu yàlla rek moo wóor waaw liggéeyu yàlla rek moo wóor te lañ doon waxtaan lépp ci liggéey bi rek te loolu lépp leen fexe unicité fii ñun ñëpp ñoo màggandoo pour cent waaw dama koy wax gars yi Baye Fall amul fii Baye Mbacke sëñ bi tey mu ne ñu ñun Baye Mbacke suba mu ne yaa def Baye ginnaaw su ma nee Baye Fall te baat yooyu kii nii dama koo gën a doon Baye Fall bu laxasaayoo ba taxaw moo ma gën a jekk war a dugg c'est la vérité bu laxasaayoo ba taxaw moo ma gën a naaj ah waaw kon on est ensemble d'autant plus ay jeunes lañu waaw léegi nag. ngay gis ñu am cinquante ans naan ñun jeunes yi waaye ñun moom ndox amaguñ cinquante ans ah kon ba tey waaw ay jeunes lañ ah Issa donc Ablaye nag moom waaw ñu gën a kii rek waxtaan waaw gën daal xam ni ci kenn mën ñaara ko ko daal waaw te ñett bu bëre te mbooloo deful dara yow bi gis yëpp mu nekk quelque chose de grandiose ay fukki nit yu am kese rek te ñu nit léegi yàlla ñu ñuy commencé dimbale waaw ñoo ngi fortaatu nag ñoo ngi am ay juróom ak ñaar fukk te yéene nañ ko sëñ bi nañ koy boole fii kenn du fi lekk dërëm kenn daay dox na am nañ xel waaw ku fi def lu nakawul man ak ku mu doon ci doon des explications loolu rek la expliquer nit ñi dégg la su dee lu colorable ñu accepté su dee kii ñu jubbanti yàlla baax na man Cheikh Oumy Protet waaw sant ñëpp nag waaw nekk ñëpp waaw. man man ma leen daal ci ci daayira yi ñu def daayira yi Baye Fall ci yële dem ñu ngi tas boo xam ne du ñëw ak du gis loolu boo ko mën a jàllale yaa xam ne mu toll ak di bàyyi dara ci Mbàkke daara ja yaa dama yaa dama waaw ngeen baal ma rek yaa dama léegi ñun dañu ñëwaat rek ci njëriñ dama wax gars yi ne leen bu ñu créé lu fi am ba pare ñi nga gars yi toog dañ koy def ak ñu jox ñu yóbbaale yëpp tey nag laa koy wax ñoom ñu suñu ko wax dañuy dajale yóbbu daara de mbàkke daara ñu koy tabax yóbbu daara de mbàkke daara ay bal pour di jaay ay biscuit ay lu ñu doon di nekk kon dañuy boole lépp rek ñu doon benn sant rek laa leen koy wax leneen ci dëgg Cheikh ñam di ma ko fàttali mu nekk nag point gën a am solo président mooy sase université waaw sase université bi sëñ bi daf ne ku joxe woon na nga joxe waat ku joxe wul joxe lépp lu ci waay joxe nag dund nañu waaw lépp rek sax comme ni ñu def tey dund nañu waaw bu wax ko lépp dégg rek wala ñu wane ko lépp gis rek ñu def président dafa am lu ma ci waxoon ma ñaan ko ma ne ko may ñu duñ def loolu parce que am na ku feeñ ci sax université te feeñul ci saxu màggal Kazu Rajab am na ku feeñ ci màggalu Kazu Rajab te feeñul ci université kon kooku boo wanee bii rek wanee woo fële rek équivalence bu am te ñun naa li lees donc te comme antime yi l'essentiel bi mooy ñu war a xam pour la ñu war benn kan su jaree nag ñu lees yëpp lees yëpp parce que bii ñii dañuy joxe bii ñii bii bi ñëw am lu leen loolu nag il faut l'esprit de compréhension donc ñu soññaat ñëpp rek fàtte suñu bopp ñu joxe woon dañ joxe waat am nañu ko tàmbali ñu joxe woon sa yaay mu ne nit ñi dañuy waxtaan ñu manqué rek ñu ko waaw sëriñ bi defal ñu ci ndam te nag jox ñu ngi sant ñëpp daal. waaw léegi léegi la ma siy doon rek mooy dafa am suñu benn mbokk taal yoo xam maanaam da doon ànd doon liggéeyal seen bopp. ngeen andi ko jóg yàlla def mu wàcc yële ne suba la tax ndax Alaaji Ba bu ñu doon tudd moo ko boole Alaaji Cheikh astafurlah Alaaji Cheikh moo ko yóbbu si Alaaji Ba ba muy doon sëñ Ba Alaaji Baara boole ko sëñ Cheikh dafa ne secteur boobu côté boobu kan moo fa ne ne ko sëñ Cheikh. waaw dama koy ñëwal bu fekkee ñi xamul ne am na judd. waaw ñoo woote sant. waaw mooy lii di ndax day daan si daan am na sëñ Fall boobu. ba def monument bi. moo wàcc ñu ngi suñu léegi maanaam daaray maam jaar bi nekkul te duñu xam ñeent mooy mooy mooy mooy am na sëñ Fall nekk fële di lii di ndax day daan si daan. mais ba ka ba ka ba ka ba ka traité. ma wàcc liggéey ba ne su ma la tas weer ma bëgg mun naa ne ndox jàpp benn bés incha allah mbooloo mi dem ko ñu def ko ñaanal ndax mère bi jàmbaar la woon doonoon jëfkat doonoon liggéeykat léppam da koo jox sëñ Fall. wuyu bëgg gëm bëgg sëñ Fall nag moo tax ba sëñ Fall woo ko nag si ngaram ba ne suba la tas weer la la la ñu bi Tuuba kon. kon si waa kër sëñ Fall sax lañ ko denc. kon loolu daal yéen yéen yi nga xam ne bi bu buñ jàppee bés bi rek naa naa naa ko wax mu wax leen ñu def benn délégation jigéen ñi mobiliser ñëpp jël oto dem ko am na ndax ñoom lu xew dañ si dugal seen kat sa ñu nekkul xel bi da gis maanaam seen buy dal day jaar ñoom seen ñoom ñoo tax fu seen bi jaar jàpp ndax jàppale ndax dëgg liggéey ba pare soog a jël seen oto ànd ak seen bi bokk bu convoi te ñoom ñëpp ay maire lañ ay maire la suukar koor bi lu mu sax xew ñoom dañ doon def déplacement ñëw kër sëñ ba indi seen ànd yëpp kon bu mu jógee ñu ko doon ànd ak moom kon war nañ mën a def délégation maanaam dem fekk fekk fekk foofu njabootam ak daanaka mu ci doon ñu ñaanal loolu daal loolu loolu laa doon bokk daal asalaamaaleykum wa rahmatulah kon ñaata xam nga. mën nañoo ñaanal ñu sant kàddu mën nga jël nag baax mën nga jël sant kàddu rek. salaamaaleykum. maa ngi leen di sant bu baax a baax di mbaaw ak am di mbaaw ak di ngeen xam ne sant di ñaan ci barke bu doon fan wéral ci baax a baax te yàggal ci seen seen kilifa yu baax a baax danaa loolu nag ñu fàttali suñu bopp leen fàttali ñun fi bàyyi nii ñu jaamu yàlla ndax lii gënul ci jaamu yàlla ndax moom Sénégal dana wax ne tabi ndax kon yaa dem mel na di tabi yàlla yàlla ko yàggamal ba danaa loolu tey jii dañ lay waroon a def xam ne ak lu jot a def di ko defal suñu mbokk yi nga xam ne dañoo am na ñoom liggéey bi suñu jamono buñ ci waxee yaa tudd rek mel nañ tigi nañ pour nañ jigéen ñëpp buñ ci waxee baaxu nga mel nañ tug nañ ñëpp kon ñoom saa su ne nañ leen di bàyyi xel nañ leen di bàyyi xel bu baax a baax ndax ñoom nee ne defuñu lu tax lu def li ñuy def lu tax lu def seen waxtu rek a def yàlla yàlla dogal ñu am suñu benn waa daayira moo xam ne moo doon dafa làq moo woo papa dem ci guddi woo aas dim ci guddi wax leen tey jii bañ demee fasaale nañ ci képp koo xam ne bokk na ci daayira ndax kat ñun ñu doon wàcce fii kaam yi fële tamit ñoo ko demoon di wàcce kaam alxuraan moom lu mën dafa am rawatina nag weer bii nga nekk nga xam ne mooy mooy weeru chëru ramadan ñu ci waaye ñaan rek sàmm man nag ñu leen di dolloo suñu borom doon leen yërëm suñu borom doon leen jéggal ñun ñu des tamit suñu borom bàyyi ñu fi yàgg leen a ñaan ci barke seen doom ñu xamal rek ñëpp ni li war mooy lii mooy booloo rek sëñ Tuubaa dafa mos a woo mag ñi ñu ñëw mu leen baax baax xam ngeen li mbokk ñu ne ko ak Mbacke jàpp nañ ni ma mbokk da mooy koo xam ne da ngeen a bokk mel mu leen naam noonu la waaye carrément benn leen mbokk mooy ki nga xam ne day fekk nga tasaaroo mu jël ab lal ko lal ko dajale nga ba nga ba nga doon say mu takk la delloo la ci ak moom léegi lii ñu def bokk day bokk baay bokk am bokk yéen na ko jëli waxee sax suñu yoo xam ne nee na su ma moom mbooloo mbooloo la mbooloo laa soxla mbooloo boobu nag mooy li ñu gis ñu gis am nag bu war woon bi bi suñ tubaab laqoo ci saa yi ci dayu mooy am na te yàlla tax dimbalante te yàlla tax di suturaalante te yàlla tax kon loolu mooy yoon ba ma ñëw ñaan yal nañu sa morom sax yàlla sa borom wuñ ñu njàq li yëpp lépp loolu kaw fii te ñoo xam bii ñu koy defar amaana dañ cee dañ cee yem waaye moom jëm suñu toogoon ci baax kenn duñ ko yëgee teew dëgg kon lii ñu def donte rëy na lool donte suuf na a takkaat de yaakaar naa ñoo amoon bi ñu koy jëbal bi muy jëbale liggéey bi sëñ Abou. ñun ñoo am na mu wax sëñ Abou dëgg nañu. waaw pare dem ko ne de lépp lu ñu war rek nañ fa yow yaa ci njëkk seexu kon nag nun fexe ba ñun ñi nañ fexe ba nañ ci njëkkal. nañ fexe ba nañ ci njëkk sëñ bi moom jiitu nañ ndax yi benn yoon waaye nit ñi nañ fexe ba université bi buñ ci kenn niñ defee nii nañ ko teel a def lépp lu ci war dina leeral na ko ñu fexe koo taxawee ba nga xam ne kat buñ ko jëbalee sëriñ bi sëriñ bi ñaan na xéw yi gën a man na ko def sëñ Fall lay bàyyi kon nag yàlla na koo def ci barke sëñ Fall ñoo ngi sant suñu mbokk bi waa kuréel gii ndax ñoo tamit sëñ Ablaye Thiam mi laa woo wax ko lépp waaw ñoom tamit boobu boobu ba tey saa yu fi nekkul suñ fi nekkee day mel ni ñoom ñoom day mel ni maa ngi fi kon kenn wutum kon nag yàlla saa borom gën a wéral bàyyi si mataam te guddal fan te yoo xéer bu baax a baax ba li li sëñ bi bëggoon fukki at ñu di ko bëgg muy kuréel gi mu gën a yokk bari siñ fa te loolu moom gëm nañ dana am ndax sëñ bee ko wax kon nag ñu ngi sant bu baax a baax bu la nag day wax xol bu feesee borom li mu bëgg a wax lépp du ko mën a wax te li dul ci nag bi xarit ci ñun. waaw waaye daal yàlla nañu ko teewal ay déwén yu bare bare bare déwén yu bari kenn mën a màgg. Omar Gueye bi daal bi teew ñaar baax ci barke ba ci man wax ma. Ah, parce que xasida yi borom xasida yi mën nañu ko. Ah, waaw waaw man man waaye ñii ñu jàpp xasida yi mën nañu ko. ah man nag yàlla ko sax ba mu def. amiin seen fam. amiin nga fekk jaaw. amiin fay ko. amiin Pape. yàlla na am ñaareel amiin Pape. amiin Pape xaalis amiin Pape. waaw. yàlla ah. na suñu naxtal bii rek biti amiin Pape. amiin Pape. ولا وعوذ بسماوات العز عبد أن في كل بي كلا أدعو إلهي الذي أمام عيبه لجولك وما يختار من براء لا يتوجل أهواما وكرمني تكرما دون كل من قمريا رحمن عبد جميع خلق رحمة من تغني أن الشر من فعل وفعل وجمد من سبعان سنتين وترك من خلق يوم القيامة بدا يا مالك الملك يا من جل الحمد ارحم جميع الورى يا الله ما تما قمنا وقبل من ذنبك